ko xam Kaolack xamoon nga ko ci deuxième ville ku ko xamoon ne xam nga ko ci wàllu mbay gerte waaye ku xam xam ko ci wàllu njaay ak jënd ba yaakaar naa ne masse centrale bii nga xamante nii mooy centrale bu kawlak bokk na ci marché yi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest ci koom moo xamante ni daana ko duggalante ak génnlante te tey loolu mu dem mel ne dafa naax say fi ne nii li ko waral rek mooy. bëtu commerce yi nga xamante ni dugg nañ ci Sénégal dugg ci Afrique waaye dugg nañ Kaolack ba nasaxal dégg nga maam koom lu bëree bëree bëree bëri ba loolu mel na ne dégg nga wàññi na dégg nga suñu économique lu bëree bëri réew moo gis na mu nekk réew moo gis nag mu nekk am na ci loo xamante ni dégg nga dana defar dana yàq waaye dañ koy wutal ay charte charte yooyu nag ci lañuy ñuy sukkandiku ci lañuy teggu tegu ba ku jog rek ci ngay mëna a sukkandiku suñ ko tegu wutul ay charte rek dégg dana indi ay yàq-yàq charte yi mooy loi lañ wax loi loi li la ñaan li dañ koy def li duñ ko def su nekkutoon loolu su nekkutoon loi tay dimanche yi ndey ma central kum neex nga tëj kum neex nga tëj sa kenn ku ne yaa am sa place da nga da nga da nga indépendant ci la ci euh, sa commerce marché occasion non marché mid non waye mbolé marché yi nekk Kaolack dégg nga yaakaar naa ne doxatuñ ci indépendant ngir loi bi nga xamante ni am na dégg nga te mbas mi dégg am ci bi mbas bi amee léegi kenn ku ne ci loi lañ tënk ñu ñëpp ñu dimanche dégg marché bi du tijji kon amul benn commerçant bu indépendant fi ne nii ñëpp dañoo tënk ci loi boobu dégg nga su dimanche jotee ñëpp ay tëj loi boobu dégg nga ci commerce tënk ne bépp carrefour boo xamante da ngay tijji. ak euh, xeetu commerce boo mën def dégg nga da nga soree dégg nga ak marché central ba denga nga maanaam nangam ci distance distance boobu bunak, kon moom la ñuy ñaanaat muy njaay mu mën di nekk di Carrefour bu mu njaay mu Carrefour bu mën di nekk da nga nag ñu dimbale nga respecté ñu dégg nga distance boobu ngir dimbale suñu jaaykat yi. ñi fi toog ñëpp dégg nga di ay commerçant ñii ngi marché central ñii ngi marché Ocass kon nak lañ doon bañ ci Carrefour yooyu ñu tijji tey lañ gën bañ. man nag seen lantinoor laa lépp loo xamante ni ñoom bëgguñu ko neexu leen da nga taxaw naa ci xeex loola kon maa ngi xeex carrefour yooyu nga xamante ni dañ fa bëgg a ñëw mënuñu nekk kër de ville ndax kër de ville dafa jege marché bi kon liñ mën rek dégg nga maam mooy génn distance bi nga xamante ni moom la bi may dégg nga euh, joxe dégg nga pour ñu sori ma central dégg nga nañ ñu nañ ñu ko dimbalee. nañ ci dimbali bu baax nañ ci dimbali dégg nga téye ñu ko dégg nga ba nga xamante ne nii dégg nga duñ gàllankoor suñ commerçant yi nañ téye seen tànk nañ téye seen loxo yeneen dëkkan fi yoo xamante ne nii am nañ am nañ distance bi dégg nga nañ leen nañ leen ko jox waaye Kaolack moom la ñu dimbale ci commerçant yaa ngi koy jooy jooni ko guddi jooni ko bëccëg kon ñu ngi ñaan ngir yàlla dégg nga maam na euh, euh, ñu ngi koy euh, tinu di ko tinu nag dégg nga mboolem autorité boo xamante ne nii nga sa loxo laal na ci loolu ministre ministre de du commerce ak ak ak ak mu ci mu ci mu ci mën doon dégg nga nañ ci dimbale téye seen tànk ba bu ñu ba bu ñu xatal suñ commerçant yi nañ ma suñ commerçant yi jàmm suñ commerçant yi liggéey dégg nga nañ ko mën a liggéeyee man nag pren naa ak sama bépp waa kër ngir couvrir dëng commerçant yi lépp loo xamante ni neexul commerçant yi daa nekk naa nekk seen Baay Faal taxawu leen dégg nga ba loolu fi am incha allah rabbi tey damay cité muy Auchan ak ku nekk dégg nga xool nañ téye seen loxo nañ téye seen loxo dégg nga nañu dégg nga may suñ commerçant yi dégg nga jàmm ak salaam ni ko dégg nga mbaal mboolem commencé ko commencé Kaolack yi doon kaase ñëw nañ fi lu dul yoon di ñaari yoon di di di wax lañ leen wax rek di waxaat dégg nga ñu ngi tëdd ba maam toog dégg nga di di déglu di xool ba xam ndax loolu dana dana fi am du li ñuy ñaan daal mooy dégg nga xool ñoom nañ nañ nañ dem ci benn dëkk boo xam ne na ko nañ dem ci benn dëkk boo xam ne soxal na ko dénkaloog yi ko ngir commerçant yi bëgguñu ko lépp loo xam ne commerçant yi bëgguñu ko nag dégg nga di ko jooy te amuñ ñun du commerçant yi dégg nga dinañ yëkkati suñ kaddu yëkkati suñ dégg suñ suñ ba nga xamante ni seen naqar ak kon na li ñu doon saal mooy dégg euh, fi am amul espace bu fi amee amul espace bu mu amee comme amul espace bu mu fi amee nag nañu dimbalee xool maam bañ ko fee créé loolu daal moo nekkoon woote bi nga xamante ni moom laa doon moom laa doon woote di ko wax la ci tullu mboolem commerçant yi nga xamante ni dégg nga d' accord uñ ci ak population bi nga xamante laa yor seen lantinoor la leen di leen défendre te moom di leen défendre euh, euh, pour pour toujours kon ñi ngi xeex loolu dégg nga kon ñu ngi euh, appelé état di appelé ki nga xamante moo fi nekk di gouverneur dégg nga di ko bàyyiloo xel bu baax a baax di bàyyiloo xel dégg nga monsieur le préfet bu baax mu dimbalañ ci loolu jàppalañ ci ba li ñu ko bëggee da ñu amee ko noonu